أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu topp ci site internet bi di 24 actu ñu ngi leen di nuyu fi ngeen mën nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo desiwaat ak yéen ci seen waxi sëriñ Tuubaa yi di ko ànd ak yéen ci site internet bi di 24 actu sëriñ Tuubaa xaada laahu maxtaara lahu nee na yoon wu mu mës ñëw jamono lakum laa fi am defar jamono dellu waaye wii yoon lahum laa fi am mës nañoo laaj sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaara lahu ndax xasiida yi mën naa tege ci kaw alxuraan mu ne leen doom xanaa fu ndey ja nekk mën naa nekk ca gannaaw ga war ko sëriñ bi ne xasiida yi alxuraan moo ko jur kon mën naa tege ci kawam sëriñ Tuubaa xaada lahu laahu maxtaara lahu daana wax dikk leen ma wax leen ko ci olof ndax ci olof lañu koy xame ci jamonoy sancub Tuubaa mas nañoo indil sëriñ Tuubaa xaada lahu laahu maxtaara lahu addiya addiya ju bari mu jox ko sëriñ ma ndumbe ne ko suulal ma ko mu suul ko fii barab bi nekk tey bi sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaara lahoo jullee tisbaar ba sël ma ne ko ahmadu xanaa la ma la suuloo woon suuloo ko déggoo yuuxoom mi noonu mu ne ko déedéet mbàkke ñu ànd dikk ba fu mu ko suuloon te mooy fii jumaa ji nekk sëriñ bi ne ko sullil te dem ba ca gannaaw xàllu jolof wa nga suul ko fa te dellu si fekk ma fii bi mu ñëwee sëriñ bi ne ko pax mi suulaat ko mu suul ko mu ne ko xanaa xamoo ne asamaan sépp ñaari bunt la am benn baa ngi tiim Kaaba ga nu ko benn baa ngi tiim fii sunu boroom subhaanahu wa taala bu lottoon bay wut dencukaay fii nga taxaw la koy def yàlla nag deful kuy lott bay wut dencukaay bu muy fàggandikoo ngir ëllëg lii séeres loolu mooy fi la wàcce ahlu badrin maanaam fi la takkee ahlu badrin te du leen fi tekkee mukk te taxañuñ siraat ahmadu lu ngeen bëgg di ko wuti ndara ki ndakaaru diir bu gàtt dangeen rombanteek moom fii te du ngeen ko faale atteeb jamono yépp itam dikk na fi fa jant bi di fenke ak fa muy sowe dana mujj lu ñu fi àtte te dikkuñu fii ci Touba àtte boobee du liggéey bii ma fiy liggéey lu itam nit dina bàyyeekoo Makka ak Madina ak mboolem réew yi ngir xool si liggéey bi kon mbokk yi ñuy topp ci site internet bi di 24actu yi fii la ñuy yem ak yéen ci waxi Serigne Touba yi di leen wax ne bu leen fàtte ne di abonné ci suñu site internet bii di 24actu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa